waaw jërëjëf euh, soxna Nene Aïcha je crois que ci sa invité yi man rek maa ci farul fenn ndaxte bokk mu woon ci benn liste. yaa fi toogal société civile. Euh, de la société civile. société civile nag am na droit bokk ci élection loolu aussi kenn terewu ko parce que am na ay liste citoyennes yu bokkoon yoo xam ne am na sax ñu gagné ay ay ay collectivité mais ñun coalition citoyenne le peuple ñun bokkuñu woon ci élection yi mm. nga xam moom lañ tuddee woon élection locale. nga xam ni man dama gis ni gulet ñu am élection locale yu amee nii enjeu. Mhm. parce que élection locale yàgg na am Sénégal mais vraiment élection locale yu mel ni moo ëpp doole sax élection présidentielle man maa ngi koy doog gis ci Sénégal donc loolu mooy sama première jàngat loolu nag man jàpp naa ne li ko andi mooy dañoo dem ci élection deux mille dix neuf coow li bëri woon après mu am ay alliance yu am après deux mille dix neuf ñu ñëw tamit jublu benn élection boo xam ni li moom moo am enjeu mooy dafa am benn question boo xam ni réglé guñ ko woon euh, muy la question du troisième mandat. ki nga xam ne moom mooy jiite réew mi. directeur de cabinet am en tout cas kenn ci ñu ko sës rëkk ne élection yii nu jëm mooy permettre ñu trancher la débat du troisième mandat parce que pourquoi le débat du troisième mandat est important parce que qu'on le veuille ou non. réew mi nous somme dans un régime présidentiel kon élection présidentielle lépp luy xew ci réew mi ni dañ koy sooraale kon nag ñoom suñ nee élection bi jàpp naa ne doole ji élection yi amoon loolu bokk na ci le fait que ñu ne ñun ci élection yi nu jëm am na taxawaay bu ñu ciy am day légitimité day légitimer sunu troisième candidature. donc cette question cette question du troisième mandat dafa am impact bu baax. par rapport à ces ci élection bi. parce que euh, euh, boo waxee yenn wax yi ci contexte boo xam ni. ñëpp ñu ngi naan wax nañ war a nañoo trancher la question du troisième mandat ki nga xam ne moo ci war a wax ne du ma ne waaw du ma ne déet am ku ko sës rek ne élection bi bii ça n'a de local que cette élection n'est locale que de non maanaam lépp lu ciy tukkee day am jeexital ci élection 2024 yi kon nag électeurs yi bu ñu déggee lu mel noonu candidats yi nga xam yaakaar nañ ne ñoom dañoo war a xëccoo 2024 dégg lu mel noonu kon da ngay gis ni. effectivement am nañ sax ñu campagne campagne boo xam da nga naan waa lii xanaa présidentielle la parce que yamuñu woon sax seen gox am na ñoo xam dañ doon dem ci yeneen gox di campagne parce que sentir nañ ni gagné ci yenn localité yi day peser sur l' élection de 2024 donc jàpp naa loolu enjeu woon ci élection yi beneen bi mooy dañuy dem ci élection yoo xam ni euh, dañu gis euh, wax dëgg yàlla ci résultat yi ni mu taxawee mu am sénégalais yo yu bëri yoo xam daf leen bett ni leen bette mooy dañu gis dans les grandes capitales wala ci dëkk yi gën a am doole ki nga xam ne moom moo yore nguur gi am ci jafe-jafe parce que man bu ma xoolee li nga xam ne moom la wax moom président de la république démb xëy na daan ci ñëwaat mu ne ñoom ñoo gañe man damaa gisagul kenn koo xam ne dangaa taxaw gañe ba noppi di mer man gisaguma loolu maanaam nit koo xam ne daa gañe ñëw di annoncé ne moo gañe ba noppi mer man loolu daal jàngat la bu ma am ci élection yii guléet ma gis loolu léegi nag man jàngat ma ci am mooy élection locale yi comme dañ koo joxoon caractère national ñoom ñi xëccoo ak ñi yore nguur gi dañoo jàppoon ñaari camp yépp que élection bii moom day déterminer lu bari ci la war nar a xew Sénégal kon jàpp naa ne buñ ciy wax du nombre de collectivités locale yi nga gagné moo am importance mais dayo bi nga taxawee ak ni la sénégalais jàppee dafa am solo ci élection bi ma gis ni dëkk yi ëpp doole Sénégal parce que élection bu ñu naxante ville yi bokkuñu ressenti ak collectivité rurale yi ñi nga xam ne ñoom ci gox-goxaan yi dañoo gën a sori capital bi wala dañoo nekk ci ay dëkk yu gën a ndaw ci changement buy am ci dëkk ñoom ñoo koy gën a yéex a yëg kon moo tax élection bi da ngay mënoo yemale localité yëpp parce que tolloowuñu ay électeurs tolloowuñu ay dayo tolloowuñu euh, envergure loolu moo tax soo ñëwee ci élection bii euh, ñi wax ne ñu euh, pouvoir bi dafa ñàkk c'est parce que dañu sukkandiku ci les grandes villes. parce que suñu ñoom également soo leen déggee par rapport à ces grandes villes là dañ lay wax carrément ne que euh, ville yooyu musuñu ko musuñu ko gagné. non problème du mos a gagné xam nga tey jii loolu man pour man wax la xamul tax parce que su fekkente ne yow damay jël d'abord dakaar boo jëlee dakaar effectivement taxaw dakaar moo amoon doole dakaar mais ñi ëpp ci xalifa Sall ñi àndoon ak moom ci taxawu Dakar gagné woon seen i collectivité en 2014 ñëpp ñi ëpp ci ñoom transhumé nañu. mais soo transhumé que yaa ngi au parti au pouvoir man mënuma ko man ba léegi bëgg naa comprendre argument boobu ñu ofun ko teg yow ki gagné mi ngi ñëw ànd ak yow seey ci sa biir parti wala ci sa mouvance présidentielle. d'accord di kon ne di contrôler ay collectivités locales ñooñu kon mën nañ la koo tuddee ne yow yaa ko yore parce que ñi ñi ko yore yow la àndal léegi donc aujourd'hui c'est pourquoi mënoo keccat la mouvance présidentielle maanaam APR gi wax ne ñoom buus ñu ko gagné non ñoom nekkuñu une entité à part. dañu dem élection pas au nom de la paire mais au nom de Benno euh, Bokk Yaakaar bi nga xam ni. Mhm. ay maire yu gagné woon ñoo ànd ak ñoom donc man lii ma jaaxal ne ne Aïcha. nga perte donc les grandes villes. Mhm. comme Dakar nga perte Guédiawaye nga perte Rufisque non c'est que Yoff mi ngi ci biir Dakar. damay joxe rek les grandes villes c'est-à-dire que waxuma communes yi mais dëkk yu mag yi mhm. dakaar nga perte ko dax da perte Guédiawaye perte Rufisque perte Thiès perte Diourbel perte Kaolack. Mhm. perte Ziguinchor. ku ne xam na ne boo ci dolli woon Saint-Louis rek mooy ville yi ëpp doole Sénégal waaw léegi nga ne yow loolu lépp ñàkk nga ko waaye maa gañe moo tax ma ne na leen leen félicité. d'accord nag parce que man li ma jàpp mooy. oui Dame te euh, wax dëgg yàlla élection yi daal li ma ci jàpp mooy boo comparé li xewoon 2009 am na ñuy bañ a dégg loolu ak li xew 2022 ci élection locale. man jàpp naa ne ñoo yem parce que Ablaye Wade 2009 la sénégalais yi commencé rocc nguur gi ci moom nangu collectivité yi jox ko keneen mu ni moom ñàkkul am la même ñoom ñu am le même discours aujourd'hui que la le président Ablaye Wade donc man jàpp naa ne daal euh, opposition bi ñi ngi bëgg euh, am chance parce que ñii li ma dégg ñu koy wax jàpp naa ne mesuré wuñ le message très fort qui leur a été envoyé par le pop sénégalais alors parce que ñoom jàpp nañ ni ñoo gagné léegi kon nag nañ continuer euh, di am yaakaar ci ñoom ñoo gagné ba deux ba ba ñetti